mbokki Sénégal ak institut virtuel du Sénégal IVS muy ab université bu ñuy jàngalé njàng mu gouvernement bu Sénégal ñom nak tagat ndaw yi bañu ñu nekk ay boroomi xam-xam yu mag ci université bu Satubambake, sa si école bi ñuy wowe groupe scolaire Touba Aljana mu ngi Radio, radio Sud FM bu Mbaké ak Walfadjri bu Mbaké ngir ngeen bindu ndax def jàng à distance wala ñëw inscription 77 459 72 80